Thank you. Amis internautes de Sunugal 24 point net ravi de vous retrouver dans votre premier numéro de franc parler tey ñu am mbégte di dalal ko nga xamante ni suñu ko waxee franc parler seen xel yi day dem ci moom Tange Tandian di kenn ko nga xamante ni ràññee nañ ko bu baax ci franc parler non seulement ci franc parler ak euh, audace bi nga xamante ni moom lay waxee les mots et puis puisqu'il le dit en toute vérité ça vient aisément comme il le dit actuellement je sais plus comme nan laa koy présenter Tange Tandian bu 2STV wala Tange Tandian bu VIP nit la bu nga xamante ni ku bëgg sa événement réussir da nga koy confier alors donc bëri na yu nga xam moom lay sol tey moom la ñu am mbégte dalal suñu émission franc parler ngir ñu sax ak moom ay waxtaan en toute franchise Tange ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Sunugal 24 point net dans l' émission franc parler. ngi lay fay di la nuyu di nuyu tous les internautes de Sunugal 24 plus particulièrement di nuyu le Sénégal le monde entier parce que c'est un site qui est suivi partout à travers le monde. jërëjëf Tange bu VIP People Tange bu 2STV. nan lañ lay présenté tey. waa Tange bu Sénégal. alors Tange ñu gis la nga nekk 2STV euh, di fa def ay émission mën naa ko wax parce que pratiquement da ngay participer ci émission yu bëri di def également euh, liggéey bu mucc ayib di partager ak ñu nga xamante ni également ñu ngi rafetlu seen liggéey ci yenn plateau ñu gis chronique yi nga xamante ni yaa ngi koy def di éveiller conscience su sénégalais bi ak képp ku nga xamante ni yaa ngi suivre seen chaîne yooyu ci li bi nan la demee ba nga ñëw 2STV. waaw mooy comme ni ma koy waxee chaque jour je crois que souvent suñu may présente je dis que je suis un chef d' entreprise dama am société bu tudd TGK communication. Mhm. TGK communication nag éditeur de presse la am na site bu ci nekk bu tudd vippeople.net. en même temps je fais marketing communication relations publiques donc tout ce qui est événementiel dama koy def donc euh, Tange est un producteur man damay produire donc je suis pas un élément koo xam da nga am contrat de 2STV wala am ko kenn. j'ai pas de patron man maay sama patron bopp au niveau de TGK communication dont je suis le président directeur général donc producteur là damay gis benn émission toog xalaat ma xalaat ko ma produire ko su ma ko produire xool télévision bu ci ànd ak man d'accord ceeg man chartam ànd ceeg man ñu yóbbu ko ñu diffuser ko foofu mais aw ma fa salaire kenn fayu ma fa dara li may produire la wut samay sponsor suñu amee suñ suñu sponsor ñun ak télé bi ñu xool naka la ñuy partager les charges ok super donc euh, yow yaay producteur émission yooyu alors ñu jàll ci leneen euh, parce que là ku la xam-xam la ne journaliste online nga yaa ngi yëngu ci communication yor nga site web comme ni nga ko waxee nekk administrateur bi di ci liggéey ak ñeneen récemment ñu gis benn mbir bu nga xam ne def na tollé sur la toile mooy accréditation ñaaxarañ loo mi nga xamante ni wala y a pas mal de journalistes yi nga xam ne critiqué nañ participation am ci euh, from CEDEAO bi yow en tant que journaliste online moom mu am accréditation journaliste online ek que ñun ñëpp xam nañ ne jàng ko fenn ñaaxarañ loo voilà euh, sujet de verbe complément sax mënu ko wax représenté Sénégal comme journaliste si ndaje mu mel ni monsieur Deyao ban jàngat nga ci def. bon jàngat bi ma ciy njëkk a def c'est tout d'abord féliciter Niakharañ Lo parce que ah, lu tax ma koy féliciter parce que c'est un jeune il est sénégalais jeune la xam na ni on est au vingtième siècle c'est la révolution de la technologie mooy li may wax saa su ne nit ku nekk yaay xool ni ngay tojee sa bopp jinax moom bëgg na ci génn am na lu mu suivre muy benn logique boo xamante ni muy snap mm. bi mu commencé snap di ci snap di snap di snap dem ba nit ñi nit ñi si boppam mm. ñoo ko wóolu buñ ko wóoloo di ko woo di ko fay communication ci wàllu snap boobu muy def muy boutique muy entreprise muy société képp koo xamante ni am nga looy def rek da nga koy woo nga ne ko yow laa wóolu ci sama communication ma fay la temps nga defal ma ko mu koy def aussi je crois que très bien ba nit ñi apprécier ko ñëpp bëgg ko donc suñu toogee ba jëmmi jamono ñi gis ñaar ñi accrédité ko mu dem CEDEAO en tant que un journaliste la faute c'est pas à Niang ñaa demul ci kenn ne ko man journaliste la ñaa demul ci kenn ne ko accrédité ma en tant que journaliste ñaa dafa def li muy def mais je crois que la faute ça nous revient nous la presse tey su ñu nee presse parce que gis naa bi ñu ko njëkkee accrédité Bamba le secrétaire général de Synpics génn mm. def benn sortie mais dama ne sortie boobu dafa yéex pourquoi mu yéex parce que ñaa bi ñu ko comee commencé bindal ay article ci site internet yi yaakaar naa ni yàgg na mm. mais site internet yi ñoom ñoo jox ñaa tey la presse sénégalaise ñoom ñoo jox ñaar doole ba nga xamante ne tey war na mën a dem CEDEAO war na ma taxaw yor téléphone am di couvrir élection présidence campagne présidentielle du président Macky Sall boo xamante ni moo jiite Sénégal yépp foofu la njëkk amee kenn ko ci dara kenn kenn critiqué wul tey journaliste boo gis mu ngi xëy di invité ñaar sur des plateaux su ko invité lan la koy wax yaa couvrir tel yaay couvrir Wally Seck yaay couvrir te xam nañu couverture médiatique kenn lañ ko jagleel muy journaliste donc journaliste yooyu suñu formé ñaa ci loolu jox ñaa gëdd boobu ba ñaa dem CEDEAO mais gisatuma lan la toog di ci wax je crois que la force ça nous revient à nous la presse. je je suis d'accord que voilà ku mu neex nga choisir plateforme de communication bu la neex mais on est tous d'accord que ni ñaa du journaliste donc euh, voilà même si la presse parle de ñaa on parle pas de ñaa en tant que journaliste neex di ci diviser mais dem ba nga ni kuréel gu mel ni CEDEAO euh, accrédité ko o nom de journaliste est-ce que jàppoon ne aussi faille la si si kuréel googu. waaw li may wax tey maanaam mooy euh, ñaa du journaliste ñun ñëpp bugg nañ ko werante ñaa du journaliste c'est un sénégalais bu yor plateforme de communication muy téléphone portable bi mu yor di ci snap mhm. te snap boobu yaakaar naa ni tey moo ko gën a may doole ndaxte snap boobu dund na ci lu metti mhm. du benn yoon du ñaari yoon mhm. am na vidéo boo xamante ni si snap la jogee woon ci avion am na leneen loo xamante ni ci moom la jaaroon mais teewut dégluwul nit ñi toujours muy percer les sénégalais l'encourage ñaa demul CEDEAO demander accréditation en tant que journaliste sénégalais ki yor CEDEAO di Moustapha Cissé Lo moo jël ñaa yóbbu ko CEDEAO mais su yóbbee ñaa CEDEAO mënul dem ne leen dama indi benn snapper pour ngeen accrédité ko mais lu mu leen di wax journaliste laa indi pour ngeen accrédité ko te koo xamante ni tey Moustapha Cissé Lo su ñëwee taxaw ne CEDEAO dama am benn journaliste ba ma war a àndal dama bëgg ngeen accrédité ko mais CEDEAO da koy accrédité mm-hmm. parce que CEDEAO xamul kuy ñaa xamul kan mooy journaliste bi kan kan mooy journaliste bale ki mu xam mooy Moustapha Cissé Lo moo waroon présider loolu Moustapha Cissé Lo moo yóbbu turu ñaa ñu tuddee ko Aliou ñaa accrédité ko jox ko accréditation professionnelle donc ñaa deful dara dama ne ki def dara maanaam mooy lan ki jël ñaar tànn ko wutal ko accréditation journaliste kooku moo def dara keneen ku defaat dara mooy kan mooy ñun journaliste yi la presse sénégalaise ñoom ñoo toog di seetaan di nelaw ba keneen ñëw jaar seen kaw jël seen liggéey. Ah, ah, alors euh, euh Moustapha Cissé Lo comme je le dis on le cite nommément parce que moom fexe ba ñaaxarañ doo euh, am accréditation ak ñeneen ñi nga xamante ni souvent c'est des journalistes yu nga xamante ni ils sont autour de lui est-ce nga xamante ni la presse ak les hommes ñu ngi koy doxee nekkul di rey crédibilité wu presse bi surtout voilà de façon générale parce que homme politique bu ne am nga ay organes yu nekk derrière euh, toi. waaw mais mooy li nga wax rek xam nga tey dañuy njëkkee ci Moustapha Cissé Lo li muy tontu yaakaar naa Sénégal yëpp dégg nañ ko nee na moom moom moom mooy kan moo ko mën jàllale mu yóbbu ko hmm. donc je que le débat est a gis ko moo ko doy journaliste sénégalais yi doyuñu ko je crois que ñun ñoo war a xoolaat bopp xool suñu liggéey parce que suñu demee ba nga xamante ne mooy quatrième pouvoir dans un pays tey ñu dem ba nga xamante ni nañ ko ba ñoo xamante ni jànguñu ko ñooñu la ñuy tànn je crois que la faute ça nous revient toujours à la presse sénégalaise sénégalaise kan mooy journaliste ak kan moo dul journaliste du ñaa kese tey même à travers les sites internet on a plus de 309 sites internet mm-hmm. mais calculer ñaata site internet ñoo yoo xamante ni tey ay journalistes ñoo fay liggéey barewul mhm. tey soo compté woon trente sites peut-être ngay génne yoo xam te ne ay journalistes ñoo fay liggéey mais yi ci des yëpp du ñu ay journalistes c'est des techniciens c'est des photographes c'est des arrivistes qui sont venus mhm. dem nañu ba nga xamante ne ñoo xamante ne mënuñu bind seen tour sax ubbi ay site internet pour di ko defee ay règlement de compte te boobu ba léegi Synpics mi ngi ci toog ministère de la communication ñu ngi ko toog ñi ngi seetaan loo xamante mi ngi jéggi tey soo demee ci liste aide à la presse. Mm. tu vois des sites yoo xamante ni tey ñi ngi recevoir aide à la presse te sites yooyu soo leen cité woon nommément nominément kenn xamu leen existé wuñu. Mm-hmm. y a des sites yoo xamante ni existé woon nañu pour benn moment léegi moment bi ñu existé kenn gisatu leen fay nañu. mais liste bii passé j'ai vu euh, liste bii ñoo xam ne ni ay 3 millions lañ leen jox ñii ay 6 millions ñii ay 2 millions alors que c'est des sites qui n'existent pas. tu point sn gis naa ko. mais tu veux dire qu'il y a des scandales donc non Dakarois point net gis naa ko avec 3 millions tey am na ay sites yoo xamante ni ñu ngi leen jox plus de 6 millions donc ce que je dis au président de la République au ministre de la euh, communication de revoir la liste a une grande arnaque dans uniquement dans le but mhm. de recevoir l'aide à la presse te sites yooyu aussi parfois dañuy am ay complices ak yenn sites yu mag mhm. parce que dañuy dugal quelques articles pour que ñu mën leen xam mais sites yu mag yooyu la ñuy lëkkalool mhm. ñooñu reprendre seen article source leen ci suuf de ce fait que lien boobu la jël envoyé ko aide à la presse bi su ñëwee su dee cinq la wala six millions yow nga jël benn trois millions jox ko deux millions donc arnaque moo Euh, euh, est-ce que jàpp nga ni euh, ni presse bi di doxee dans ce pays-là comme le Sénégal dina doxal am réew. no presse bi moom franchement parler ñi doon presse ñi respecté leen comme presse. Mm-hmm. ñi ngi fi mais tey les brebis galeuses ñoo juuxu ci biir presse te kooku kan moo koy régulariser du man du yow du Massamba du Mademba mhm. dañu am ministre de tutelle on est dans un état de droit qui a été dirigé par un chef de l'État le président de la République Macky Sall a nommé un ministre de la communication pour charger de pour se charger de tout mhm. donc tey moom moo war a jóg saytu loolu xam ne d'abord premier problème majeur bi ñu war njëkk a régler maanaam mooy le problème de la presse mhm. problème de la presse nag pour ñu régler ko je indépendant qui est là pour chercher des informations, se sourcer, avoir des preuves, avoir des choses tangibles pour informer le peuple. mais loolu amatu fi jamono ji da ngay xool nit ku nekk am nga sa presse tey politicien bu ci nekk am na presse am bu mu wékku tey man li baax ngay def ci man li bon ci doo ko def mm. tey man li li bon ci sama ennemi loolu laa bëgg nga koy génnee chaque jour donc presse bi tey dootul presse boo xamante ni daf fi toog pour informer mm. presse la boo xamante ni c'est pour régler des problèmes c'est problème boo presse la boo xamante ni c'est juste on est là pour euh, euh, faire la guerre mm. euh, presse la boo xamante ni tey c'est uniquement pour détruire des gens tey soo xoolee li xew li Sénégal man je dis que on vit dans un Sénégal méconnaissable Sénégal bi kenn xàmmeetu ko tey soo xoolee polémique yu bëri yu am ci dëkk bi. di ko jëlee collège Jeanne euh, d'Arc pour affaire voile bi. Mm. histoire générale du Sénégal euh, livre polémique bu Iba Der Thiam bi. Mm-hmm. Mm-hmm. avec les familles religieuses les familles royales. mais je crois que tey presse bi moo accentué loolu. Mm-hmm. parce que tey da ngay gis ku toog fële yor benn vidéo boo xamante ni amul njëriñ du information ça désinforme. nga am benn nit ci presse bi nga woo ko jox ko mu ñëw publier ko tey benn sénégalais bi toog fële comprendre dégg ko commencé saaga kële ku nekk xam ne ku nekk dafa gëm tarixam ku nekk dafa gëm sëriñam formation yoo xamante ni tey su dee da ngay woote presque nga tu es responsable war nga am benn maturité boo xamante ni benn sens de prudence boo xamante ni da nga koy jël balaa ngay traité information bi loolu yëpp amatu fi actuellement je peux dire que suñu basé woo suñu presse bi waxuma la un Sénégal méconnaissable mais on va vers un Sénégal qui va vers le fond. alors est-ce que jàpp nga ni te état bi am na volonté wu régulariser milieu boobu dans la mesure où moom aussi parfois mu joxe information génne na fake news la et cetera et est-ce que tey ni nga xamante ni moom la presse sénégalaise bi di doxee nekkul moom la arrangé ba tax na amul benn volonté ngir régulariser loolu. waaw mooy li ma wax sànq rek nee naa la on est dans un état de droit parce que réew la ñu nekk dafa am ku ko jiite muy lan le président de la république am ay institutions yoo xamante ni lu mel ni pouvoir euh, législatif pouvoir judiciaire mais dañ ko saytu maanaam réew la ñu nekk bu mel ni benn garab garab nag dafa am ay branche ku ci nekk dafa am loo xamante ni moom nga war a yellool pour def ko mais jamono ji nañu waxante dëgg euh, presse sénégalaise bon li fi nekk du man maa koy wax yow parey ngay dund man parey lay dund keneen parey lay dund lenn la ñu am suñu baat pour wax mais tey xëy na ñi magu yi ñi nekkul ci dëgg peut-être ñoo ñu ëpp doole ñooñu ëpp benn bras boo xamante ni peut-être ñoom dañuy déggoog ñenn ñi moo tax ñun suñu waxee du dem fenn mais yàlla bi dara teewut yàlla bi ëpp doole ñëpp toujours mi ñuy jox raison par rapport ak liy xew ak liy dal ci suñ kaw fake news yooyu ngay wax mooy li ma wax. gis nga presse bi dañ ko politiser il faut que ñu jël politis euh, politique jox ko politiciens yi. parce que vraiment les les patrons de parti ñoom ñoo nekk les patrons de presse. parce que ñooy fay salaire yi ñooy jënd matériel yi ñoo lay jëndal oto ñooy fay sa location ñoo lay jox lépp donc euh, ki la abal bët moo lay wax fi nga xoolee. jamono bi ñu fiy njëkk gis presse la presse était quelque chose d' indépendant. Mm-hmm. bu njëkk euh, journaliste bi xam nañu amul xaalis mais

il y a des gens qui ku mel ni Mame Less Camara on peut le citer. Mm-hmm. ku mel ni tey euh, Mamadou Omar Ndiaye on peut le citer. Mm-hmm. il y a pas mal de journalistes yoo xamante ni mën nañu leen citer fii. mais mm-hmm. tey dafa am loo xamante ni moom la ñuy jàngaloon muy lan la dignité d'abord. la dignité maanaam mooy yow nga xam yow yaay kan. yow lan moo la war ak lan moo la warul. est-ce que da nga war doon nit koo xamante ni dañ la war a jënd wala da nga la presse est devenue maintenant un ma arrangé loolu laay ministre bi ñëw na indil na ma 10 millions signé naa convention ak moom xoolal 10 millions yi mën naa ci faj sama soxla noonu laa koy doxalee donc y' plus d' information mënootoo xam ban presse moo crédible ak ban presse moo crédible parce que information yi nu muy génnee xam nga bu njëkk information su génnee la première des choses que tu fais tu analyses mais maintenant information day génn yow du tic au tac nga lire titre bi rek fi nga toog sa kër nga ne moo nekk ci ginnaaw loolu et ça devient